voilà gars yi ginnaaw bi ñu leen nuyu yaatee gis ngeen ni ñu ngi fii nga xamante ne moom mooy ci buntu almeeri Yoff yi ñu nar a indi ki nga xamante ni moom mooy suñu maam suñu yaay di yaay ki nga xamante ni moom mooy Mbaye Dieye gis ngeen tout à l'heure image yi nga xamante ne dugalal nañ leen ko foofu nga xamante ne moom moo nekkoon ci levée du corps bi foofu ca fas ñëpp génnoon ñëpp taxawu ko ñëpp gunge ko ñëpp ñaanal ko ñëw ak moom fii nga xamante ni moom mooy ci dernier hommage muy këru dëggam ñor ko denc fii nga xamante ni moom mooy ci Yoff gis ngeen ni mm, Youssou mi ngi fi Mbaye Dieye Faye tamit gis ngeen ko yegg na léegi dugg na sax ñun nag du ñu dugg ci biir almeeri ndax dadul wor ma sax waaw mais nag mën nañ leen toppal li nga xamante ni moo fi am comme ay témoignages mën nañ leen ni moom moo mooy ci célébrité yi ñëw comme comme réaction rek incha allah mais daal en grosso modo foofu nga xamante ni moom mooy ca jumaa ja gis ngeen ki nga xamante ni moom mooy Youssou Ndour yegg si na fa teel na fa yegg def lu rafet te duñ ne gulet ndax ku xam ki nga xamante ni moom mooy Mbaye Dieye Faye xam ki nga ni moom mooy Youssou Ndour donc c'est très normal ndax ñoom ñoo bokk papa ñoom ñoo bokk yaay du rek li ñoo bokk li nga xamante ni moom mooy euh, super étoile déedéet seen seen relation jéggi na foofu ndax ci ñoom ñaar daan nañu dégg ku nekk bu mësaan def yenn témoignage wala bokk yenn émission yoo xamante ni ci moromam la dina wax lu rafet loo xamante ni tey lii bu amee duñ ne duñ ne duñ ne guléet déedéet lu rafet la encore une fois kay dañuy ñaanalaat ki nga xamante ni moom mooy suñu yaay ji wala bokk suñu maam ji yàlla yërëm ko jéggal ko te xare ko aljana incha allah ci barke Seydina Muhammad gis ngeen ni waa ndakaaru gi waa pour ne pas éviter de dire euh, waa Fass waa Colobane waa Médina ah pour baña wax loolu dama naan ndakaaru gi yëpp ñoom ñëpp ñëw nañu ànd ak moom fi nga xamante ni moom mooy ci dernière demeure am ki nga xamante ni moom mooy ci dernière hommage bi nga xamante ni tey war nañ ko ko gunge fii ci Almeri dinaa bi ñu jugee foofu nga xamante ni moom mooy ca ca ca ca ca ca jumaa ja ah mu nekk lu daw yaram mu nekk lu tiis loo xamante ndax ne lu metti waaw comme ni ma ndax yàlla sañ to dogal ñu naan dafa metti déedéet mais nag dañ koy tiis lu lool waaw di santaat yàlla bu baax a baax di ko wax alhamdulilah ala kulli xaal ndax gis ngeen ni lii bu amee moom rek lañ ci war a mën a teg te xam ni yàlla moo ko dogalee nii ci li nga xamante ni moom mooy jàmm wax naa ko sànq nee naa ki nga xamante ni moom mooy mbéjee fay daan na dem ci ay bés yu demee nii yoo xamante ni ay jegeñaaleem wala bokk ay soppeem wala bokk ay xaritam yoo xamante ni ñoom ñoo doon dund lii kon tey moom mi nga xamante xamante ni moom mooy euh, ki xew le parce que lii euh, benn benn benn gaar la boo xamante ni ku nekk rek boo yeggee sa terminus incha allah foofu ngay foofu ngay foofu foofu ngay arrêté foofu ngay taxaw foofu lañ lay waajalee pour jëbbal la ki nga xamante ni moom mooy suñu borom gis ngeen ko artistes yi tamit ñoom ñëpp yegg si nañu Pa Youssou Ndour rek gis nañ fi ku mel ni ku mel ni ah? waaw Ousmane Ousmane Alioune Mbaye Nder ah bëri na tant d' autres bëri na pour pour ne pa citer rek waaw bëri nañ fi lool ñëw soutenir ko ñëw encouragé ko ñëw dooleel ko ñëw wan ko ni li muy métti métti incha allah dina xaw a wàññeeku ndax di nga ñu gis li muy métti métti dinañ ko xaw bokk ak yow ndax li dafa doon loo xamante ni moom li muy ressenti jamono ji moom képp moo ko mën a xam kon daal mais ay actes yu rafet la ay actes yu rafet la ah gis ngeen ko ñi ñi ngi dugg ah ñi ñi ngi ba tey ah, ku na fu nekk nit jugee na fu nekk nit jugee na fu nekk waaw muy signifier que ni ki nga xamante ni moom mooy Mbaye Dièye Faye ak famem Mbaye Dièye Faye ak yi ah amoon nañu benn relation bu extraordinaire ak ñi nga xamante ñoom ñooy sénégalais yi pour pour bañ a dire fans moo waral ñoom it ñu bàyyi seen occupation ndax tey jour la ah tey mooy ci Almeri nit ñi ñi ngi gën di ñëw nit ñi ñi ngi gën di ñëw nit ñi ñi gën di ñëw ñoom ñëpp ñu ne dinañu jéem a bokk ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Mbaye Faye tiis bi nga xamante ni daal na ko ni ki démb ndax démb ci guddi gi la ñu yëg li nga xamante ne moom mooy xibaar bi waaw mu nekk lu metti parce que moom mi nga xamante moom mooy Mbaye Faye dafa demoon foofu ca Gambie ah defoon benn nga xamante ni moom mooy benn tournée ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy orchestre am ci waa Super Étoile bi mu yegsee rek si la dogal li am te xam nga gis nañu koo xamante ni gëm na gëm na yàlla lool ndax ni ki sànq bi ñu ko gisee foofu nga xamante ni moom mooy ci kër ga jumaa ja gis nañu koo xamante ni ku dal la gis nañu koo xamante ni waaw macha allah nangu na parce que yii c'est pas évident xam nga mu wàcc si sa kaw nga ànd ak benn sang froid bi du yomb mu dal si sa kaw nga nga nangu waaw xam ni yàlla moo ko dogalee nii tey ci moom ndax comme ni ma wax sànq rek moom mii daan na ñëw ci ay bés yu demee nii yoo xam ne danaan gunge ci nit daan na ñëw ci ay bés yu demee nii yoo xamante ni ay jegeñaaleem ñoo xewle woon tey nag moom moo xewle waaw dañu koy wax massa dañu koy wax massa dañu koy wax massa di ko wax nii lii yàlla na fi gëj te aussi sunu maam ji wala boog sunu yaay ji yàlla na dee di doon noflaayam waaw ñu leen di massaw wat bu baax a baax a baax a baax xanaa dañuy kay xaar ñi nga xamante ni ñoom ñooy célébrité yi wala bokk yenn autorités yi nga xamante gis nañu leen fi ndax ci levée du corps bi am na ñoo xamante gis nañu leen mais dañ ne woon dañuy bàyyi ba nga xamante ni denc nañu ko incha allah ñu def nga xamante ni moom mooy seen réaction wax seen diggante ki nga xamante ni moom mooy Mbaye Dièye ki nga xamante ni moom mooy seen digganteem ak frère am yi parce que waaw mën nañ lii la ñu deseel ki nga xamante ni moom mooy suñu maam ji wala bokk suñu yaay ji donc li nga xamante ni moom moo fi war a amee fi nga xamante ni ah gis ngeen Matar Diop suba teel mi ngi ngi noonu di yegsi ah Matar Diop suba teel mi ngi noonu di yegsi xam nga muy symboliser waat encore une fois que ni Sénégal ñoo ko bokk tey mën nga bokk fi nga xamante ni moom mooy Subatel mën nga bokk fi nga xamante ni moom mooy Faramareen mën nga bokk aussi fi nga xamante ni moom mooy Super Étoile mais ak lu ci mënti am rek gis loo xamante ni ñi nga xamante ni ñoom ñooy sénégalais wala bokk fans yi kër lépp loo xamante ni ñoom ñu ngi koy def à travers ñi nga xam mooy seen seen seen seeni artistes gis nga lii nañ ciy bàyyi xel bu fi bu fi kenn ñaawoo kenn bu fi am kenn ak benn diggante boo xamante ne ay xarma yàlla la ciy am bu fi kenn nekk ak nit waaw nekkin koo xamante ni tey waaw boo gisee sa morom di nga dëgg ndax tey lii nga xamante ne moom la Matar Diop Soubatel def tey xam ngeen ni euh, kenn mënu ko bañ a rafetlu déedéet kon ñi nga xamante ne ñoom ñooy fans yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy topp ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, artistes yi nañuy jàngat ci genre yu demee nii ndax lii nii mënut a ñàkk la tey ki nga xamante ne moom mooy Mbaye jee Faye moom moo xewle waaw suba kenn xamul am mat la suba kenn xamul kan la donc ak lu ci mënti am rek nañuy rafetal suñu diggante yi ndax bu boobaa lii nga xamante ni tey nit ki defal nañu ko nit ñi waaw dinañu xam ni kat lu lu jaadu la lu war a mun a nekk la ndax ñi nga xamante ni tey bu fekkoon ni rek ak famille famille famille Mbaye Dièye Faye la ñoom ñëpp mun ñu def li nga xamante ni moom la ñuy moom la ñuy waajalee ki nga xamante moom mooy suñu yaay ji wala bokk suñu maam ji ah, kon dafay am ñoo xamante ni say proche la ñuy doon dafa am ñoo xamante ni say am jàmm la ñuy doon dafa am ñoo xamante ni say jegeñaale la ñuy bi yow nga nekk côté bi ñu doxal lépp jaar ci yoon yi nga xamante ni noonu lañu ñu ko lislaam digalee ndaxte bu nit génnee àdduna yiñ ko deseel bareetul mooy lan mooy dinañu ko yóbbu ca ya wala bokk ci morgu ba sangu ko bu ñu ko sangee dinañu ko sang bu ñu ko sangee aussi dinañu ko jullee buñ ko jullee aussi dinañu ko jébal boroomam li ci des nag moom mooy ñu ñaanal ko ñu ñaanal ko suñu borom yërëm ko te te te te ko waaw kon kon kon lii lañu ko dellal lii lañu ko deseel ci li nga xamante ni moom mooy dernier omage kon jaajëfal nañu ñëpp ñi nga xamante ni tey ñëwoon nañu bokkal ki nga xamante ni moom mooy Mbaye Dièye Faty frère am ci tiis bi nga xamante ni dal na ko waaw man du ma ne jamais nakar tiis la ñuy wax ndax yàlla moom sañu ta dogal ñu ne ko daf ñu naqar yi déedéet loolu loolu loolu nit du ko def asumaak loolu jullit du ko def jullit du ko def parce que dañoo war a xam ne rek lépp lu mën ci am rek nañu ko sante yàlla xam ne lu yàlla def rek dafa doon li gën xam nga des fois dinañu gis nit nit nit kontaan ne alhamdulilahi rabbil alamin mais it comme genre yi da nga naan alhamdulilah ala moo defaat li nga xamante ni moom mooy ndogalam ci jaam ñi tey kii nga xamante ni moom mooy Mbaye Dieye comme ni ñu ko waxee woon tout à l'heure mooy daan na fi gunge ay nit

xamante ni li moo ko daal metti na lool lool lool lii rek lañ ko mën a jàppale ndax tey bu fekkoon benn benn benn alal boo xam dañ ko waroon génnee pour ki nga xamante ne sunu maam ji wala boog sunu yaay ji desaat ci daara dunya walaay du fi jóg bu doon alal moo ko fii bàyyi tey non du fi jóg ndax bu dul moom mi nga xamante ne moom mooy doomam sax mhm. doom ji am na ay xam-xam am na ay jegeñaal yoo xamante ne mun nañu ko ci jàppale de telle sorte que loolu day yemb ba mu bën a des ci àdduna mais lii dafa nekk loo xamante ni euh, lu mënul woon ñàkk la tey ki nga xamante ni moom moo koy dund waaw d'accord métti na mais ñu ngi koy ñu ngi koy masawaat encore une fois kon dañuy xaar rek bu fekkee sama naataango taskatu xibaar yi amutuñu luñ ci yokk rek ñu xaar ñi nga xamante ni ñoom ñooy ah, ñi teew ci biir euh, ci ci biir almeeri bu ñu génnee incha allah jëlaatal leen li nga xamante ni moom mooy réaction yi comme ni ko defee foofu ci jumaa ja kon sama gars yi bu léegi-léegi amin yaa rabbi yàlla ko yàlla fay ñun ñëpp jaajëf